Rewmi leen ak jàmm mbokk yi ginnaaw ba ñu leen nuyoo di leen siyaar encore doy waaru doy waaru doy waar moom moo xewati ci kan ci kii di président Ousmane Sonko nga xam ne daal moom yàlla da ko may nit ñi encore ay jege ñaareem ak patriote yi nga xam ne daal lu mu joxoon ñu ko ginnaaw ba nga xamee ne nag tribunal bi daal dina koy amande ci 200 millions koppkat la Ousmane Sonko diggante mag Mame Boye Niang mooy procès Prodac boobu nga xam ne 30 bi génn lañ ko àtte woon moom Ousmane Sonko moom nag xam ngeen ne dafa am ci politique bi lu kenn amul moom rek mooy lancé cagnotte mu di jàll waaye dafa am ay ci xew ci 200 yooyu nga moom lañ ko amande am na ci ñoo xam ne daal pare nañu pour joxe ko. am na kenn koo xam ne génn na def ay révélation yu doy waar ñu daal di koy euh, nemmeeku kooku kan la mooy docteur Abdoulaye Diallo docteur Abdoulaye Diallo mi ngeen di gis moom daal pare na pour daal di génnee deux cent millions yooyu nga xam moom lañu ñu amaan Ousmane Sonko moom pare na daal di koy joxe likit likit génne deux cent millions yi xobet daal di koy jox ngir Mame Mbaye Niang ngir cofeel gi nga xam ne moom mii di Abdoulaye euh, docteur Abdoulaye Diallo mi cofeel boobu am ci Sonko moom sax ma ngay dëggal ne lii moom nekkul première fois sax mu di ko def waaye ki journaliste bii nga xam ne moom la ñu information yi mos nañoo mos nañoo waxante ñoom ñaar cinquante millions ab nit boo xam ne digoon na ko te def na ko. kon bu ko waxee moom nee mën na ko te bu fekkee na Mame Mbaye Niang mi pare na moom daal dina yéene li nga xam ne mooy deux cent millions yooyu daal di koy teg ci loxo Mame Mbaye Niang kon docteur euh, Abdoulaye Diallo mi ngoo ko nee na daal deux cent millions yooyu pare na pour mbenn moom dong mu génne ko likit likit xobet daal di koy jox ki nga xam ne mooy Mame Mbaye Niang jaa ngeen jëf mbokk yi